talaata fukki fan ak ñaar ci weeru août atum 2014 mbokk yi teewlu télévision Futur Média bisimilah ci xibaaru digg bëccëg beeg euh, ponk yi ci gën a fës maître Aïssata Tall Sall ak Mamadou Racine Sy cour d'appel bu Saint-Louis àtte na jox na dëgg kii di Mamadou si gannaaw cour recours ba nga xamante ne déposé woon na ko doon nag ñàkk ànd ci victoire maître Aïssata Tall Sall mu nekk dogal boo xamante ne indi na ab xaajaloo ca magistrat yi ndax ñeent nga ñoom dañoo daal di gedd saal ba ne boobee dogal duñu ko fekkee benn yoon daañu déglu eh, ci biir xibaar yi maître Aïssata Tall Sall juróom benn téeméer ak ñeent fukk ci kilogramme eh, yamba la gendarmerie bu Foire teg loxo ca plage ba nekk ca Yoff Ndenaar loole nag mu nekk loo xamante ni lu yéeme la defkatu ñaawteef yooye ba nag kenn tegagu leen loxo teewul nag gendarmerie ba ma ngay wéy di def liggéeyam di gën a nag fooglu lu jëm ci tefes yooyee waaye tamit di xool ana defkatu ñaawteef yooyee fan la ñu féetee taskatu xibaar yi prier nañu leen ngir ñu gën a eh, tey ci xibaar yi nga xamante ne soxal na jàngoro ya eh, Ebola eh, ñii nag di jàngale ci wàllum tasum xibaar la ñu sàkku nag ñoom taskatu xibaar yi mooy lépp lu ci xibaar nañu ko vérifier xoolaat ko càmbar ko ndax léeg-léeg pëcc day am ci askan wi ndax ñi ngi doon lam-laamee ne jàngoro yi Ebola mi ngi fii ci Sénégal leneen ci ponk xibaar yi nu nu koy baaxoo di def saa su ne desk bi tey jii ñu ngi ko jagleel wàllu koom-koom wàllu koom-koom nag daañ ci wax bu baax a baax ndax dañu jàpp ne njaayum gerte mi ak lu soxal wàllu gerte gi dafa daal di tege tembe euh, fii ci euh, Sénégal ca euh, at yi ñu weesu nag lu toll ci tonu gerte daan nañ ko bay fii ci senegal waaye tey jii jafe-jafe yi bari na lool ba tax na nag ñu fas ne seet fan la jafe yi féete waaye tamit waral daal bokk na ci taw bu doyul bi waaye tamit ñàkkub euh, jiw bi nga xamante ne nii ñii di baykat yi ñi ngi koy euh, jànkonteel mbokki xarit yi kon lii mooy ponk yi gën a fës ci xibaar yi bu ngeen taaxirloo tuuti ñu faram fàcce leen Euh, jaa ngeen jëf ci ànd beeg télévision Futurs Médias ni ma ko waxee ci ponk xibaar yi maître ay Tall Sall Mamadou Racine Sy euh, cour d'appel bu Saint-Louis daal di nay euh, tranché jox dëgg nag ki nga xamante ni moom mooy Mamadou Racine Sy gannaaw recours bi mu déposé woon doon nag ñàkk ànd ci victoire bu ñu joxoon na Aïssata Tall Sall ne moom mooy maire bu Podor loolu nag bu ñu ko fàttalikoo ci ay bis yi ñu weesu kookee di Mamadou Racine Sy dafa doon wax ni dafa am. ci ab bureau de vote boo xamante ni ay néew dañu faa voté signé fa te loolee nag mënut a ne ba taxoon mu déposé ab recours tey ji nag cour d'appel ba daal di tranché jox ko dëgg waaye nag loole ñoom magistrat yi daanaka ñëpp ànduñu ci ndax ab xaajaloo la indi ñeent ci magistrat yi ñoom dañoo daal di sax gedd saal ba génn la ñu def ndax nee nañu dogal boobee nga xamante ni cour d'appel jël na ko ñoom duñu ko fekkee euh, benn yoon mu nekk nag loo xamante ne daanaka booy seetit indi na xaajaloo euh, ci ñi ànd ak ñii di maître Aïssata Sall ndax ñoom mënuñoo gëm benn yoon ni kii nga xamante ni moom mooy seen maire bi kon ñàkk na euh, kon recours boobu nekk na loo xamante ni daal mënu ci see sukkandiku moom maître Aïssata Tall Sall sax moom mi ngi wax ni xeex ba du ca yem ndax dina def kéemtalaay kàttanam euh, tey si ngoon sax dina fas yéene janoo ak taskatu xibaar yi euh, moo xam nag la mu cay wax du ñàkk moom metre Aïssata Tall Sall ñu am ko kon ci biir xibaar yi ni ma ko waxee woon ñu daal di àddu nag ci beneen mbir soxal nag li nga xamante ni moom mooy euh, jàngoroy euh, Ebola jàngoroy Ebola ji nag gis nañ ni euh, mi ngi lëmbee ndax ñu ngi doon wax ni mi ngi fii ci diwaanu Sénégal waaye nag loolu dafa mel ni sotti loolu it mu mel ni élément bi sotteegul moom it dinañ ci delsiwaat ñu wax nag ci drogue bi nga xamante ni nii gendarmerie bu Foire teg na ko loxo loolu xayma nañu ko ci juróom benn téeméer ak ñeent fukki ci kilogramme gendarmerie bu Foire teg ko loxo ca tefes ga nekk ca Yoff Ndenaar waaye nag defkatu ñaawteef yooyu eh, teguñu leen loxo ñu ngi leen wër ba tey gendarmerie bi nag fas yéene gën a def kent lay kàttanam gën a nag surveiller plage yi waaye nag ñooñu nga xamante ni ñoom ñooy malfaiteurs yi ñi ngi leen di wax Fatimata Ba lañ ci àndal ak Jafara Ba tefesu yoof bi ci benn gaal la gendarmerie bu Foire teg loxo lu tollu ci fukk ak ñaari balo yu amoon yamba boo ko xaymaa mu jox la juróom benn téeméer ak ñeent fukki kilogramme. njëg gi buñ koy xool buñ ko jaayee nii ci paquet yi. maanaam war naa toll ci diggante fanweer ak juróom ak fanweer ak juróom ñetti million ci suñuy koppar waaye bu ñu ko tasaaree ci dëkk bi ba ñu koy jaaykat yu ndaw yi maanaam li ñuy wax détaillant ah, jël ko di ko jaay bu ñu ko jaayee dina toll si dina leen indil juróom benn fukki million ak ñeent ci suñuy xaa ci suñu xaalis waaw léegi nag euh, ñun démb ci ngoon lañ ko lañ ko jàpp fi ñu ko jàppee nag mooy plage bi ñuy wax euh, Yoff Ndenaat gendarmerie ci njàppandalu borom gaal gi la daal di amal li ni mel ñi nga xamante ne nag ñoom ñoom moom drogue bi ñu njortu ne mu ngi jógee ca bët saalumu réew ma ba tey kenn gisagu leen. Eh, barki démb muy dimanche dañoo amoon benn xibaar bu ñu doon wax ne am na gaal gu yaboon lii euh, war a jógee ci maanaam bët saalumu dëkk bi réew mi war a yéeg si. bu yéegee nag day wër ñu xalaatoon ni dañ koy wàccee diggante kayaar ak Malika ci place ne waaye ca booba lañ jël suñuy matuwaay mën nañoo xalaat ni sax ne ñooñu dañoo yëg ni ña nga fa ñu jéeg a jéem a wëru jëm ñoo wër ndomba ñëw booru yoof wàcc fa lii dañ ko fa wàccee aussi daa am ku doon dem ca gaalam gis ko fa fan yi nag defkatu ñaawteef yi tefes yi la ñu taamu bàyyi ci oto yi ñu leen doon jaarale loolu tax gendre gendarmerie ne yokk na kaaraange gi ci tefes yi fi mu ne nag dañoo jël géej gi waaye ñun ñoo ngi ci géej gi ñoo ngi ci ndox mi ñoo ngi ci saxaar yi ñoo ngi ci tëli bi fi mu nekk nii àllarba ñu nekk bis bu ne déjà ak mais àllarba ak dimanche ak samedi lay gën a bari gis ngeen gendarme yu bari maanaam xaj yeeg fas yeeg ak gendarme si di topp ñooñee ñëw ci plage yi. mu mel na fan yi li ñu teg loxo ci yamba wala drogue bëri na lool fii ci Sénégal gendarmerie ne du tàyyi di topp yooye délinquant Fatimata Ba ñu di ko jaajëfal bu baax waxoon nañu ko léegi cour d'appel euh, bu Saint-Louis euh, jox na dëgg Mamadou Racine Sy gannaaw recours euh, ba mu déposé woon nag ngir ñàkk ànd ci victoire ba ñu jox maître Aïssata Tall Sall loole nag daanaka indi ab xaajaloo fa fecc magistrat yi dañuy dem ca Saint-Louis fekki fa Mohamed Nabi Silla Mohamed Nabi Silla maa ngi lay nuyu. ñoo ngi lay fay. mu mel ni kon dogal bi daanu na tey jii ak cour d'appel bu Saint-Louis. waaw dogal bi nga xamee ni xaaroon nañ ko daanaka ci fukki maanaam mbir yoo xam ni ak juróom-ñett yu cour d'appel bu ndar waroon ak jëm jàpp jëm ci wàllu locale yu ñu jëm ci diwaan bu Ndang bu Louga bu Matam di Tong ak woon ci wàllu bu Podor moo desoon tey jii ku tàppel nga booy wax affaire bi ba ci fukki fan ak ñaar ci weeru ut bi mu di tey jii mujj gi daal magistrat yi ci lim boo xam ne toll na ci juróom-ñeent ñu nekkoon ci saal bi euh, daanaka juróom yi dong ñoo ngi di jël décision bi ñeent ñi doon ñoo xam ni dañu génn gerte maanaam daal quitté salle bi laata euh, maanaam ñuy euh, jël décision bu ni mel lii doon xaajaloo boo xam ne jot nañ se gis ndax nag euh, ci xabaar yoo xam ne jot nañ ko ci wàllu cour d'appel te ba ñuy njëkk càmbar maire yi fukki magistrat yi teewoon ci bërëb bi boobaak léegi am na ëpp ñaari ay bis juróom yi ñoo àndoon ak jël dogal bu ni mel juróom ñi bañ ko ba tax na ñu dàqoon mbir mi ba tey tey ji nag li def juróom-ñeent ci magistrat yooyu moo di kenn ci magistrat yi euh, bu waroon euh, teew ci bërëb bi tey ñëwul euh, mu def juróom-ñeent yi fa teewoon juróom yi ànd ak décision maanaam nangu recours bi nga xamee ni Mamadou Racine si jot na ko def jox ko ndam li ñeent ñi d'accord moom ci lu mel daal di génn saal bi laata ñuy joxe ndogal bi lii nag li nga xam ne nañ ci cee jàpp moo di daal loo xam ne xëy na du ñàkk dana créé loi ji ci judiciaire ndax daan nañ gis ay magistrat yoo xam ni ci su fekkee dañuy jël ndogal ci biir saal bi donc la ñuy mën a xam ku ànd ak ku àndul ci mbir mi ak mbir mi daal na lëkkati waaye bi euh, bañ nañu ba lànk tëdd ci naaj bi daan ni ñoom d'accord ñu ci ndogal gi nga xam ne ni Cour d'appel ci wàllu boppam jot na ko jël euh, lii daal mooy li nga xam ne mën nañ ko cee jàppandeegum ci wàllu Cour d'appel di jàpp ne ca diwaan bu takk der yi fees nañ fa dell ñuy ragal ay yëngu-yëngu am ca dëkk ba waaye mën nañ jàpp ni nag su fekkee gis nañu dañ ni mu dogalee ba ba fu mu toll ni avocat yi seen wàllu bopp ñoom nee nañu daañu dem ci Cour d'appel ci Cour suprême ngir ñu gën a saytuwaat lépp loo xam ne ak ci wàllu mbir moom ñi di ko jaajëfal bu baax Mohamed Nabi Silla depuis Saint-Louis ñu ngi lay jaajëfal ni nga ko waxee noonu la kon cour d'appel euh, bu Saint-Louis àtte na jox dëgg Mamadou Racine Sy euh, ma déposé woon ab recours ci cour d'appel bobe ndax ànduloon ci victoire bi nga xamante ni jox nañu ko maître Aïssata Tall Sall victoire boobee nag moom euh, daf ko naqarlu woon moom Mamadou Racine Sy ndax dañu doon wax ni am na ci ab bureau de vote boo xamante ni ay néew ñi génn àdduna dañu faa nangu ba tax mu déposé woon ab recours décision boobee nag indi ab xaajaloo ni nga ko waxee Mohamed Nabou Sila eh, ci magistrat yi ndax ñeent ñi ca ñoom dañoo daal di mujjoon sax gedd eh, génn saal ba ndax ñoom nee nañu dogal boobee duñu ko fekkee benn yoon takk dere nag wàcce nañu leen foofee eh, ca diwaanu podo ndax dañuy bañ nag askan wa daal yee fa ab fitna rawatina ñi nga xamante ni ñoom ñoo far ak maître Aïssata Tall Sall loolee du ñàkk nag ñu déglu maître Aïssata Tall ci suñu biir xibaar yi wala bokk ci suñu yeneen euh, jotaayu xibaar yi ñu daal di dem ba diwaanu Matam wax ci jàngoro yi Ebola ak ka ñu ko doon joxtal foofee te loolee mujj la antu waaye nag teewul euh, ki nga xamante ni moom mooy médecin chef euh, bu diwaanu Matam jàpp rek ne liggéey bi nga xamante ne def nañu ko loole wane nañ ni ñoom noppi nañu ngir xeex bépp jàngoro waaye tamit noppi nañu ngir ci wàllu fegu gi def seen liggéey na mu waree waaye nag la ñu tëj mu ubbiwaat ko ndax loolee jaru ko ñu teewlu moom médecin euh, chef boobee ci micro Ali Bandel Niang exercice bi ñu doon def wan nañu fi nga xam ne woo fa la ñu war a gën a góorgóorlu pour que bu ëllëgee bu beneen cas ñëwee ñu gën ko mën a gérer mooy ci wàllu jël prélèvement bi yónnee ko rapidement mais tout le reste vraiment euh, ministère jëloon na matuwaay yi parce que équipement yi nga xam ne mooy protéger agent de santé yi pour ñu mën a jàmmaarloo cas bi yépp nekkoon na fii sur place waxtu yi mi nga xam ne ñu ngi wax ak yéen fi mu ne nii amul benn cas léegi bu suspect bu nekk dans la région le seul cas bi ñu ci amoon xool nañ ko saytu nañ ko institut Pasteur bi nga xam ne moo moo habilité pour wax ñu ndax négatif na wala positif na nee nañu c'est négatif donc nañu dalal xel yi reprendre activité yi ni ñu ko waroon reprendre mais ba tey ñu continuer ci vigilance bi nga xam ne waroon nañ ko am par rapport ak euh, maladie bi daal du tere ñun donc dañuy continuer vraiment di am di ñaaw njort ci bépp yaram bu tàng ànd kook deret dinañ la saytu ba xam ndax moom la wala du docteur euh, Doudou Sène médecin chef euh, bu région bu Matam foofee la ñuy des ci diwaanu Matam ndax jëwriñ ji dénk wàllu wér-gu-yaram moom it ma nga fa ci suba ba tey ngir dem dalali euh, askan wa ndax pëccëxoo amoon na foofee ca diwaanu Matam ba ñu doon wax ni am na ko fa amee jàngoro yi Ebola mi ngi demoon nag ngir dalali xel ya waaye tamit ngir nag seeti malaat boobee fan la toll ci wàllu faju bi ñu daal di ànd ak Ali Bandel ñang Ali Bandel maa ngi Ali Bandel ni ma ko waxee rek jëwriñ ji dénk wàllu wér-gu-yaram ma nga foofee ca diiwaanu Matam ngir dalal xel ya euh, jëwriñ ji ni nga ko waxee yegg si na mu ànd ak secrétaire d'État à la communication bi ñu ñëwee dem nañu te poste de santé fi nga xam ni fa la cas bu njëkk ba euh, ñëwoon laata ñuy euh, dem ca l'hôpital ba waaye du ma ci yàgg damay jox kàddu gi ministre secrétaire d'État Yakham Mbaye mbay yaa yore wàllu communication gouvernement bi li ñu gisagum suba ak léegi lan la ñu mën a wax sénégalais yi seetaan TFM jamono waaw li ñu leen mën a wax daal yomb na te leer na kaawu euh, suspect bi ñu waxoon ne moo am atam <clears throat> dañu gëstu ko xool def ci ay analyse ba xam ne amul benn lu ci nit mën a ragal ci jëm ci feebaru Ebola tey ci ndogalu président de la république euh, premier ministre instruire ñu démb euh, ministre de la santé Eva Marie ak man mi nga xam ne maa yor d'État à la communication ñëw nañu fi maatam dem ci camp militaire bi nga xam ne fa affaire bi fa njëkkoon gis euh, déclaré affaire bi dellu ci jógee fa dem ci hôpital euh, bu Ourossogui gi gis malaat bi dunonteeg moom jàmm moom waxtaan ak moom mu làkk ñu ci kàllaamu wolof ni kàllaamu euh, nasaraan ni amu yëgatul dara ci yaramam ba pare ñu jóge ci visite personnel médical beeg yépp ba pare nag ñëw fii ci hôtel bi toog di waxtaan ak waa Matam. waaw euh, kon euh, ñoo ko déggandoo mu nekkoon secrétaire d'État à la communication di euh, monsieur mbaay Mbaye fu mu ne nii nag dinañ ci ñëwaat ak ay image ndax ki nga xam ni moo yore woon feebar bi yëngal diwaan bi yëpp jot nañu seq waxtaan ak moom filmé nañ ko itam dinañ ci ñëwaat ci yeneen i xibaar. Bandel Ali Bandel Ali Bandel yaa ngi may dégg. waaw maa ngi lay dégg. Euh, waa ci gàtt rek est-ce que askan wa léegi mën nañ la seen xel dal na ndax gisoon nañ ab pëccëxoo ci seen biir. seen xel dal na wax dëgg yàlla ndax euh, itam euh, ci l'hôpital ba rek moo koy firndeel ministre bi donte ñëw na waaye sax passage maanaam ci délégation bi jaar def xool na ndax askan bi ni nga ko doon nemee noonu la ñëw nañu ku nekk ak service ak sa tawat. ngir ñëw faju donte nag li nga xamante ni moom kenn mënu ko weddi mbir mi mu ngi ci biir xel yi même bu fekkente ni moom euh, tiitaange gi dem na waaye jamono yi moom kenn réerewul mbir ni diwaanu tam xam nañu dëgg-dëgg menace fièvre Ebola moom am na ci réew ñu di ko jaajëfal bu baax Ali Bandel Niang ni ma ko waxee jëwriñ ji dénk wàllu wér-gu-yaram ma nga ca diwaanu Matam ngir dalal xel yi jàngoro Ebola nag xeex ko nekku rek ñi yëngu ci wàllu wér gu waaye taskatu xibaar yi tamit am nañu ci cër bu baax a baax ba loolee tax na uh, li ñuy joxe ci wàllu xibaar dañu ko war a segg di ko xoolaat bu baax a baax ñuy jàngale ci wàllu tasum xibaar di sàkku nag ci taskatu xibaar yi nañuy xoolaat ni ñuy joxe xibaar yi ndax léeg-léeg dinañ ko joxe anam yoo xamante ni uh, dina tiital askan wi Fatou Bintou compter Alioune Diagne. situation yi amee ci réew tey def ciy baax ñii di taskatu xibaar yi ñoom ñoo ko xamle te tamit joxe information bu wóor am na ci yoon jàpp ñu ni nag yee fitna sax ci jamono ji moom moo warul ci taskatu xibaar yi. def ci ndànk baax na ci xam nga moom def ci ndànk baax ci mooy ne boo nee bëreet ne leen loolu am na fi. danga nga tëj réew mi. journaliste bala muy bind journaliste bala muy wax na wax lu ko wóor na ko gëstu ndax njëkkante wax. te la nga wax jubul mujjee wax waaye wax lu jub moo ko gën principe information balaa nga koy joxe da nga koy seet seetaat ko gëstu ko ba nga xam ne lii dëgg la bëgg jaay sa journal tamit ba di wax lu la neex jamono ji dafa nekk loo xam ne dafay gàllankoor askan wi bëgg jaay jarul loolu ndax daa demam ne ak dootoo jaay ndax boo tëjee réew mi ba kenn ñemeetu fee ñëw ndax ne yow nee nañ feebar am na fa te kenn feebaru fi waaye boo gisaguñ ko moom ngay naka jaay. day joxe information rek pour jaay seen journal seen télé seen rajo seen machin chouette donc tout ça dafay nekk loo xam ne lii euh, mën na nekk loo xam ne dafay diriger journalisme ci benn yoon. moo tax éthique ak déontologie yi lu am solo la ci taskatu xibaar yi ci jamono ji ñu nekk. déontologie boo ko déggee ñu koy wax mooy li nga xam ne moom la journaliste yi d'accord ne lii ñoom la ñu war a liggéeyee muy wax dëgg muy bañ a wax luy luy luy féyoole muy bañ a wax luy gaañee. éthique moom ngor la ak maandu. ngay wax nanga ko wax gëstu ba mu wóor la bu la xesee ba leer nga seet ndax dëgg yëpp nga mun a wax waaye nag du tere nag nguur gi dañ ko jam tuuti ni koy jamee mooy lii mun nga rek démb secrétaire d'état à a communication wax na ministre bi wax na loolu doyoon na waaye boo oowee nit ki ne ko yaa ko ci yóbbante police wala ñu ngi dem ci parquet tey ëllëg ak si biir boobu am loo koy wax. ñoom jàngalekatu tas xibaar yi jamono ji ni ñu bu ñu sañoon képp journaliste kuy wax ci jàngoro ji mu di virus Ebola nga joxe information boo xam ne dana gën a mën a jàppale askan wi ñu xam fan la ñuy teg seen tànk ci wile jàngoro. Fatou Bintou konte joxe ay xibaar yu leex ñu segg yu wóor ci jàngoro yi Ebola kon sàkk nañu ko ci taskatu xibaar yi ñu dem ba gare routière des Beaux Maraîchers foofe nag ubbi nañu ko ni ki démb ubbi nag ci ay jafe-jafe ndax lañu fay ñaxtu bokk na ci ñàkkum restaurant ay euh, wanak yu jaar yoon waaye tamit ci wàllu enregistrement ba sax gisoon nañ ni askan wa ña fa doon jànkonteel ay jafe-jafe chauffeur check client yi ku ne di yuuxu dañ ci ànd ak Nafissatou Sila benn fan gannaaw bi ñu amalee lu bite gaaru routière bi di boo Maraîchers ca Pikine jafe-jafe yi ngiy wëy di gën di bëri ci côté chauffeur yi di ñaxtu saa su ne foo nekkee bu sore fu leen wooye nga mën a avancé bu baax nga dem ci piste bi waaye yenn saa yi dañuy woo ñu def presque trente minutes yoo bind bi metti na boo bindoo da ngay gaar soto yóbbu sa carte grise doog a rang sa machine ba ba pare ñun rang yi dañoo jaxaseeg minicar yeeg biis yeeg yëpp metti na trop wax dëgg yàlla si ñun mënuñoo gaare. ñi ñee ci gisee bi bind moom ñoo njëkk doon erreur ndax da ngay ñëw bind cent quarante am ñu ñëw bind cent soixante yàpp xam naa ñoom yor machine ñoom comprendre guñ ko. jafe-jafe yi ñu fa nemmeeku yëpp ñoom ñee chauffeurs yi jàpp nañu ni manque d'organisation la. organisation amu fi moom baaxul parce que dañuy def lu leen neex beere rouge yi sànq ay apprenti lan jàpp yi dóor fii lu ne la ñuy def ñun kay wax dëgg yàlla dara neexul si ñun. ni koy jaar yoon parce que nit tamit bu fekkee ne daa dafa am ñoo koy jox ak ñoo ko xam ak ni ko war a doxalee. bu nit ñu bëggee rang diggante fii ba bunt bi gin pour biee rek mun ta nekk. àndandoo jaaykat yi ceeb yi ñuy toog normal di gérer mais bi ñu doon nii duus xam nga lii lii du ay duus loo ramat ay mille personnes. li indi fii ay pox. su fekkente ne leen leen indi fii ci boo maraîcher neexul chauffeur yi am na itam yenn voyageurs yu mu neexul. ay horaires yi nga xam ne jógee Tamba Kédougou ba Ziguinchor dama bëggoon ñu bàyyi leen fi ñu nekk parce que ñun ay commerçant lañ loo xam dañuy dem ba Kédougou Bakel Kidira di yóbbu ay bagage soo léegi ñun suñu bagage mun ñu di ko déformer di ko jëlee fële naka la tuddati biir Sandaga di ko indi ba fii loolu day métti ci ñun. ba fii ñu toll nii nag su fekkente ne sax jumtukaay ya fa nekk chauffeur yi jàpp nañu ni doyul nguuru Sénégal teg na fa personnel bu am solo ngir mbir yi mën a jaar yoon. Nafsatou Sylla chauffeur si leneen lu ñu jàpp ni baaxul mooy waxtu yi nga xamante ne ña ngi koy def eh, ci seen woto yooyu mënuñoo dem mënuñoo dikk ndax organisation bi jaarul yoon benn yoon loolee nag ñoom naqarlu nañu ko waaye circulation bi nañu ko xoolaat bu baax a baax ca gaax boobee ñu leen toxal dañ ci ànd ak Pafara ñi ngi Thierno Laurent Mendy. fii ci buntu Pikine oto yi demuñu dikkuñu yenn saa ñu leen di téye ca intersection ba clients yi ak chauffeurs yi mer bu futt lañu def. li ko waral nag moo nekk ubbite gaar bu bees bi ñu tuddee boo maraîcher ñoom daal jàpp nañ ne déception la. embouteillage bi dama métti na trop trop sax si ñun moom franchement parce que ñun heure bii nii daan na fekk ni yóbbu suñ cinquième mais heure bii suñ quatrième la ñuy yóbbu nii. garage bu bees bi nii fii daa xat quoi fii fépp embouteillage soo ba kenn mënu fee jaar lekk ñu naan ñu koy dafa xat lii nii moom bàyyi ñu ngi bëgg a deewee saa bi moom. clients yi nag faaw ngeen ànd ak dal am na ñenn ñoo xam ne sax dañuy wàcc di dox ngir bañ a def ay waxtu ci biir oto yi. deux heures ci suba laa jógee sama kër Pikine jëm Dakar maa ngi nii soog a an añ jaaruma ci maa ngi xiif miir ndax circulation circulation bi moom ni mu mel jaaduwul. moom vraiment c'est difficile après peut-être ça c'est trop difficile. metti na trop ndax waroon nañu xalaat ni balaa ñuy doxal garage bi fale ko ñu jël seeni i matukaay. savoir euh, gannaaw li nu mel nag ñu indiwaat ay jooyanti ci gaar bi yittewoo nañ ko ngir circulation bi gën a yemb. Ah, ñu gën a favoriser foofu noonu en même temps tamit organisation bi si biir des na lu bëree bëree bëree bëree bëri parce que oto yi nga xam ne si yab jëm si àll bi waruñu bokk ak oto yi dugg sorti waruñu bokk sorti oto yi dana war a di génnee ne yii dana war di nii. il faut gendarme yi nekk fii di jéema defar voie bi ñii di gaaw quoi parce que comme que tijji nañ garage bi benn bis rek bi ñu ubbee gaar boo maraîcher wu pikin gis nañ ci ay jafe-jafe yu bëri yoo xam ne jur na ko ca bunt ba ñi nga xam ne nag ñooy chauffeur si ak clients yi jàpp nañ ne ñi taxawal gaar bi danoo yàkkamti teg ko te xooluñu yépp ci nga xam ne ay matuwaay la. jafe-jafe yooyu directeur général bu conseil exécutif bu yore wàllu dem beeg dikk bi weddiwu ko nee na nag ndoxte loo gis ah, dafa am ay jafe-jafe ñoom ci seen wàllu bopp daañu def seen kéemtalaay kàttan ba jafe-jafe yooyu nga xamante ne nii waa boo maraîcher gaar bu bees bi ñu ngi koy jànkonteel eh, féete seen ginnaaw Alioune Thiam eh, directeur executif bu CETUD ñu teewlu ko ak Salimata Aw Seck modernisation boobu ñu bëgg ak coppite googu ñu bëgg moom moo indi tey ay la yéen gis nañ ko constaté nañ ko reconnaître nañ ko am na des difficultés dans l'exploitation ñu ci balu suñu mbokk transporteurs yi di ci balu chauffeurs si di ci balu képp koo xamee ne secteur transport soxal na la formation bi ci war nga xam ko xam gaar bi naka lay doxalee naka lay doxee ba nga xamee ne buñ ci sumba ñun ñëpp dinañ ci mën a dugg ci alhamdulilah rabbil alamin di ñaan yàlla mu wéy ci kanam Euh, xibaar yi soxool géej géej dem beeg dikk bi euh, fukki at ak euh, ñaar gannaaw ba ñu ko ba mu daanoo ci géej gi muy batolo le tey ji nag haute autorité bi nga xamante ni moom moo yore wàllu dem beeg dikk bi ci géej gi di fooglu lépp lu ci wàllu kaaraange amaloon na ab bis nag mën nañ koo tuddee simulation loole nag genre fooglu rek opération boo xamante ni dañuy jël seen matuwaay ngir bu jéyee amee ci géej gi ñu mën cee fegu loolu nag taxoon na ba ñu defoon ab manœuvre loole nag ni kiy démbal woon Mbacke Amar ci fukki at ak ñaar ginnaaw suuxu bato la Joola kuréel gi yore lépp lu jëm ci lëkkale. sàmm ak kaaraange biir géej. amal tàggatu bu ñuy walloo ñu am ay jafe-jafe ci biir géej. ñëpp ñoo xam ne daal aussi bien public que privé ñuy yëngu ci wàllu ci wàllu sécurité géej ñoo fi daje tey euh, def benn exercice maanaam di en def entraînement di seet bés bu euh, bu ñuy nan ci yàlla musal waaye su amoon na bu bu. bu jëyee amoon ci biir géej bi wala lu mel ni lu amoon ci bateau le Joola yi ñu doon seet nag est-ce que am nañ jumtuwaay ak xarañ ak xarañ boo xam ne dañuy mën a dinañ mën a maanaam ñu ñëpp ñu jóg euh, fexe ba ba euh, maanaam euh, ñi gaañu ñu mën leen. ñu toppatoo ba ñu ñëw ci jàmm ak salaam. ñu nekkoon ci bato bi ñu duppee Aline Sitoé Diatta te am ay gaañu gaañu nii lañ leen di toppatoo. fukki patient ak benn la ñuy recevoir juróom ñoo ci grave en fonction de loolu préparé woon nañ juróomi laal pour malade grave léegi fi mu nekk nii ki njëkk ñëw moom dafa amee woon problème bu noyyi ba mujj gi dañ ko jàppale machine bu koy noyyi moom la ñuy door a jot nii moom la ñuy xool noyyi bi ak xool circulation bi ndax amul problème pour une évacuation. ki fi teewal nguur gi ne lii dal na xelam. boo xoolee li nga xam ne dispositif bi lañ teg fii ci marine nationale pour lépp loo xam ne lu mel euh, war na fi mën a xew ñu jaamaarloo moom fexe bi nga xam ne la la fi xewoon dootu fi xew bateau Aline Sitoé Diatta bi bu déparé Ndakaaru ba ba muy yegg Ziguinchor fi ma toogoon tey di xool yaa ngi xool bato bi soldats yi nga xam ne dañ leen tàggat seen xam-xam màcc ci loolu ñu ngi koy surveiller pas à pas. ngir mbir mi lee am ci anam yu mucc ayib ASMAR àndoon ci ak armée gendarmerie sapeur pompier ak SAMU national. Mbacke Ambar cant ak ngërëm ñeel na la niñ ko fas yéene defee bis bu set tey ji desk économie la ñuy waxtaanee wàllu koom ak mbirum gerte mi bu njëkkoon Sénégal doon na bay gerte lu toll ci daanaka tonne at mu ne waaye tey ji nag jafe-jafe yi bari na li ko waral bokk na ci taw bi nga xamante ne nii nag wàññeeku na waaye tamit eh, jiwu ji nga xamante ne nii eh, nekkatul eh, qualité ñi nag di baykat yi amatuñu daanaka crédit ku leen lebal ngir ñu liggéey waaye tamit Sénégal dafa rocci woon gerteem. dafa rocc woon loxoom ñuy jéggalu ci mbirum gerte mi loolu yëpp nag bokk na ci jafe-jafe yi nga xamante ni moom moo tax tey gerte gi daanaka tagga bi ak mbay mi euh, dañ ci ànd ak Dissa Preira ci dossier bi ñaar fukki at ci ginnaaw Sénégal daan béy lu toll ci million ngu tonu gerte at mu ne waaye dem na ba 2013 production bi mënul weesu 700 000 tonnes mbayum gerte mi di dund ay jafe-jafe yu taar. production gerte am na jafe-jafe boo xam ne ni mu ngi jóge ci ñàkk maîtrise du taw ay kuréel yu mel ni ay Sonagon Sonagraine ak Sonacos nguur gi jaay Sonacos tas Sonagraine loolu moo indi jafe-jafe ci wàllu mbéy mi at yi di dem gerte gi di gën di mu am ñu bees ñu si dugal seen ay yoxo état bi rocceeku teg ci njëg yi daanu baykat yi tàmbalee ndóol. jafe bi moo di bu nguur bu ci nguur gi génn la xam te bu ñu neen TREF plan d'ajustement structurel financier boobu xam naa ni ko ne nga pass nag ñu doggali ko plan d'ajustement structurel financier. 80 la ñu ne nguur gi na désengagé wu ci secteur gerte na désengagé secteur mbéy ñan ñoo ko santoon banque mondiale ak FMI ak kilo gerte bu ñu béykat jaay rek mu ngi jar ñeent fukki dërëm manqué dërëm ak ñett fifteen mais ñu jënd gerte gi yenn saa yi dañuy ne gerte gi dañ ko jëndee ñaar fukk ak juróom-benn ñaar fukk ak juróom-ñaar ñoom bëgguñu perte bëggu béykat bi perte. moo ne nguur gi def na ay jéego ngir jéem a suqali filière bi. waaye ñàkk organisation secteur gerte gi tax alal jëm ci dugal yëpp mënula feeñ. man jàpp naa ni six cent cinquante mille ba sept cent cinquante mille tonnes at bu nee war nañ ko mun a am. si wàllu subvention ndax gerte gi bu nu waxee ni mi ngi war a jar si jiw juróom fukk wala juróom benn fukk gouvernement bi dafay wax. jël naa fanweer yi wala jël naa ñeent fukk yi euh, paysan bi na fay ñaar fukk ci kilogramme bi mais loolu yëpp boo ko dee seet dafay nasaxaay dafay nasaxaay parce que xam nga subvention boo ko dee def dafa war a fekk si fi nga koy def fi filière bi mu organise ci fukki junni ak ñeenti village yu Sénégal fukki junni ak ñett dañuy bay gerte fukki baykat yooyu jël moom juróom-ñaar mooy seen liggéey. Dissa Préra jaajëf ci gëstu bi ñu daal di tàbbi ci xibaaru biti réew yi euh, di ko doore nag ak jàngoroy Ebola ji lëmbee euh, jiwaanu Afrique ndax pap bi nga xamante ni moom moo amoon jàngoroy Ebola ji fële ca Libéria euh, te ñu rawale woon ko ca Madrid benn hôpital mujj na ñàkk bakkanam xibaari biti réew yi tamit daañu dem ba Russie réewum Russie nag daal di yónnee ndimbal jagleel ko askan wa nga xamante ni ñoom ñoo dëkkee ca penkum réew ma ndax kat guerre a nga leen di bëgg a jeexal li ci gën a fees ak Ibrahima Kamara sa réewum Espagne missionnaire espagnol ba amoon jàngoroy Ebola bi faatu na moom missionnaire boobu fii si Afrique la amee jàngoro boobee laataa ñu koy rawale sa réewum ci hôpital bu ñu duppi Pass Juan Carlos III sa Madrid ñi faatoogum si jàngoro boobu di toll ci junni ak fukki nit ak ñett ñi jot am jàngoro boobu it di toll ci junni ak juróom-ñetti téeméer ak ñeent fukk ak juróom-ñetti doomi adama ci àddina bi si xayma kuréel bi di OMS di mbootaay àddina bi taxawu wàllu wér-gu-yaram OMS moome sax lu mu xamle mooy daal ne nañu fexe ba andi garab boobe ñu ne day faj jàngoro Ebola donte ay mbir des na koy càmbar ci euh, garab boobe ab convoiris ñeel ndimbal si wàllu dund moo daal di wuti frontière Ukraine ba nga xam ni ay mu ngi fay wéy ba léegi ngir wàllu askan bi nga xam ni euh, sonn nañu ci euh, fitna boobe réewum Russie nag moo fas yéene yónnee dund yooyee ngir xetali askan bay yeewoo foofe ci penku réew ma. yegg si nañu ci xibaaru tàggat yaram yi ñu di ko dooree ak tënk lii Amara Traoré moom nag euh, tabb nañu ko euh, entraîneur bu jaraaf bu ndakaaru euh, gannaaw nag bi nga xamante ni yoroon na équipe bu Guinée moom moomee nekkoon sélectionneur bu Sénégal tey ji nag daal dinay remplacer ki nga xamante ne rek kon moom moo nekkoon Abdoulaye Sarr moom mu nekkoon adjoint kon remplacer na ko ci bopp jaraaf football la ñuy wax ba tey ak Ndiambour mi nga xamante ne nag mi mi ngi ngir dem euh, première division Ligue 1 loolee nag gannaaw nërmeelu gi nga xamante ne nërmeelu na ko lu toll ci ñetti saison tey ji nag liggéeyam moom mooy fexe ba yéegaat première division bu ñu sukkandikoo ci Chérif Moustapha Ndiaye moom moomee nekkoon gardien bu club nekkit euh, membre ci comité directeur ba nee na nag faw ñu soppi euh, doxalin bu fekkente ni bëgg nañu équipe Louga bi ñu yëkkati ko fu mu gën kawee ñu teewlu ko ak Abdoul Aziz Kane am nañ ko du dee ay moyens am nañ ko l'équipe joue très bien mais pour gagner moo jafe woon ñun daal loolu moo ne xool jaaxal mais ci dernière journée yi lañu soog a dégénéré wu parce que am na lu xam ne yoo xam ne doxul woon gars yi euh, en complet ko. en personne ne man nee naa ne équipe de football kenn du ko ñëw tey nga indi un entraîneur tey ban moo ban moo évoluer nga dax ko indiwaat keneen en ce moment équipe bi du am du am du am du évoluer. mais nag xam nga itam jël ant na tey doo liggéey nga dàqee doo xuloo kii doo liggéey nga ant dàqee kooku itam doxalu équipe ndax y avait beaucoup de amoon na ay erreurs yu bëree bëri jarul may wax erreurs yi mais ñoom xam nañ ko du ma ko waxee ñoom danañ ko xam y avait beaucoup de d'erreurs kon ren loolu lañ daloon daaw la ñu mujjee ba gagné ay match du déwénee du ko defee man naam yàlla def nuy jéeg en premier Uh, foofee ca diwaanu Louga nawetaan yi uh, dana tàmbali ci ay bis bi ñu uh, dëkkmal loole nag nekk loo xamante ni ñoom ñooñee di yëngu ci wàllu nawetaan yi te nekk itam ay kilifa bëgg nañu nag ñu xoolaat compétition boobe bu baax a baax ndax fa ñu ko daan xaar daanaka nekkatu fa ñu teewlu Mbargane mbay moom nag nekkoon na président ay ASC jamono ñu teewlu ko ak Abdoul Aziz Kane. dëkk nawetaan def rek. parce que c'était pour occuper sainement la jeunesse pendant les vacances fexe ba fexe ba xale yi nekk ci activité yu baax ba vacances yi jeex ñu dem jàngi d'ailleurs bu ne buñ masaan ni gannaaw suba la école di ubbi samedi boobu la ñuy def finale régional mu jeex ay phase nationale ak yëpp amul woon. for li mu yàq moo ëpp li mu defar te booba violence yi nga gis léegi amatul amul woon. y avait am na lu taxoon ñu def mouvement nawetaan bokkul ak tey nga xam ni euh, rey nit xaj na ci lu ne xaj na ci parce que xaalis la ci dugg coupe du maire coupe du préfet coupe du d'ailleurs boo ko dee xool moment nawetaan produiretul de grands footballeurs ñu ci bari ci centre formation yi la ñu génne te bu njëkk les plus grands joueurs du Sénégal moment nawetaan la ñu génne parce que daaw ñu lessivé xam nga commencé mois de juin wala juillet du football ba mars te condition yoo yoo yoo dundee amoo ko fo lan ngay jëriñati en championnat ñu wax ci wàllu athlétisme euh, kunos kunos nag fas yéene euh, joxay bourse su jagleel ko athlètes yi nga xamante ni daañu dem euh, ci jeu olympique bu Rio ñu fas yéene ko amal ci atum 2016 kunos nag fas yéene itam dajeek mboolem fédération bi nga xamante ne ni da nga teew kon ci jeu olympique yooyu Seydina Diagne teg ci nag ne list athlètes yi nga xamante ni ñoom ñoo war a kon jot bourse yooyu daañu ko fésal loole nag benn fan lay doon ci weeru septembre ñu teewlu ko ak Cheikh Tidiane Dione. xam nga euh, bu Jeux olympiques passé dañuy euh, tàggataat suñu athlètes yi euh, pour xool ñan lañ ci mën a may bourse pour ñu mun a dem Rio bourse la boo xam ne dafay nekk bourse de préparation yàlla def na ni que ni xam naa ni incha allah à partir du 1er avant 1er li liste bi dina génn et à partir du 1er septembre athlètes nga xam ne moom la ñu tànn pour ñu nekk boursier olympique pour Rio 2016 dinañ commencé jot seen bourse pendant 24, pendant 24 mois. Donc disons venant en fait euh, euh, du comité international olympique. gannaaw xibaaru tàggat yaram yi ñu ànd yër li yéen i kaay xëyandoo ak borom jërë ngeen jëf. jërë ngeen jëf cour répression enrichissement illicite bu dey wax mbay kayit la bëggoon doyle na ko sëkk démb observateur nañu Abdoulaye Baldé leen ci jox ba ñu doy sëkk la ko doon toppee moom Abdoulaye Baldé di teranga julewul mu lijjanti ko leeral li mu toogale ci teranga fan la ko jëlee yéen a kaay bi nañu démb Abdoulaye Baldé yóbbul na waa CREI ba yóbbu leen ay jinne ña ca ndajama ba ñu di xaar Abdoulaye gis mooy benn waay ni bëxër ñett sol lu xonq cooy yi ci kaw ba ci suuf takki téeréem yor jaasem waa jooje yéene bi dañu noonee la leen toppee ba ñu dem ba ca permanence Abdoulaye Baldé am na ñuy joxte ne sëriñu Abdoulaye Baldé la en tout cas journal bi l'Observateur nañu budulub saltiguéet ma nga jugee ca bois sacré ya Abdoulaye Baldé ak la mu tontu waa Cour répression enrichissement illicite ba tey Observateur nañu ci kayit la ko dëxañ junni page la ne du ma ci mandat dépôt li ñu bëggoon leeral naa ko juróomi milliards la ñu ko doon toppe ci teranga ju mu toogaale Abdoulaye Balde bind na ko ci junniy xët yóbbul waa cour répression enrichissement illicite ba tey moom Abdoulaye Balde mu ngi xam le ne lu aju ci li nga xam ne moo de ak ëllëgëm gis na ne kon waa cour répression enrichissement illicite bu ñu ko félicité wul duñu ko indil yenn ci ay jafe-jafe Balde ci populaire ne gendarme yi doon amal enquête bi dañoo def lu leen neex ndax dañoo xool la ca baax ñu tegee ko nële jël lu bon bindal ma ñu fekkat ko ci le quotidien yéen a kaay bi nañu Balde teranga julewul ji ñu koy toppee Abdoulaye Balde leeral na ko ba mu leer nañ moom ndey mbil ji nañu fa jamono ji xel mu dal la àndee dara yëngalu ko la Sénégal nañu la ci am ba am ca moo di nga xam ne waa Cour répression enrichissement illicite wax nañu ko mu di ñoom Aliou Ndao ci ne moom la Abdoulaye Balde amee ci teranga ak li Abdoulaye Balde ne moom la am dafa mel ne yàlla ak yàlla Abdoulaye Balde leeral na ko tey te teranga jëmuy leeral li ñuy tudd ne jabarama ko moom ak li ñu naan doomu nijaayam di cousin moo ko moom na ci lëjj ba jël ko gàddul ko boppam ay kàddoom ci direct info mun nañu fa Abdoulaye Balde di ko woolu ngir mu leeral teranga ji mu toogaale loolee sii du n'importe quoi ñu fekkat ko ci l'observateur moom yi diri sa sekk ndaamal kajoor mu fay dànkaafu magistrat yi na nañu xippi seen i gët xool mat li ñu doon te bañ a seetaan Macky Sall mu leen di dugal ci kàmb lu mu leen defloo rek ñu def ko idi ba tey ci le quotidien yéen a bi nañu moom Idrissa Seck dal na ci kaw magistrat yi démb la ko xamle ba mu demee doon jàppal tànk Abdoulaye Ndaw ma nga woon démb ci au commandement gendarmerie dañu ko wool ba mu demee ki nga xam ne mooy Mamadou Gueye Faye njiital gendarme yi ab demande d'explication la ko jox ngir mu leeral li mu bind ci téeram bi fu mu ko tek ba noppi nag appel ko 24 heures ngir mu andi leen tontu le moo di Félix Zale njiital yéenekaay bii di La Tribune Le Quotidien ñu Félix Zale ma nga ca loxo yoon démb la ko waa division investigation criminelle woolu ba tëye ko moom Félix Zale njiital yéenekaay bii di La Tribune ndax dafa bind ne Sénégal am na fi juróomi nit yu fi amee jàngoroy Ebola te loolee du dëgg dara ci amul observateur tax nañu waxam jooje moo tiital nguur te bu moytuwul moom Félix Zale ca kaso ba la jëm ñu dem ci direct info fekk fa Awa Marie Coll santé jëwriñ game wàllu wér géram journal bi nañu mere na lool taskatu xabaar yi la tax mu mere leen moom soxna si di Awa Marie Coll santé wax na ko ci populaire nee toj-toje ki tooxi ak lu garaaw weesuwul fekk loo xam ne taqewul laalewul nga koy wax ci Sud Quotidien Awa Marie Coll santé nañu fa gi bu Kaolack ñoo nga ca kër gi bu Kaolack ak seen woy wi ñu génnee tuddee ko jugu fii yéen a bi di observateur xëy na dalal ñoom ñaar ñi ci kër ga mu di kilifa ak caat la ñu leen xamal moo di Abdoulaye Wade mënu fee nekk ñu ko doon jiiñ naan daa bëgg a jël nguur gi jox ko doom ji ñu xeex ndono loolee ba mu jugee fii bu nuppi bëgg a nangu koo xam ne dafa bëgg jël réew mi séddoo ko mokki ki gaayam lii fay lii sàll du ñu ko nangu tey duñu ko nangu ëllëg ci enquête yi nekkaay waa kër gi bu Kaolack nañu fa duñu fi jële monarchie ba noppi di fi nangu ñi di ko jaajëfal bu baax Mamadou Mohamed Ndiaye ñi féetewoon ci machine bi ak ñi jàpp ci xibaar yi ba mu sotti cantan gërëm ñeel leen rédaction bi dina ñëwaat 19h30 ak 20 ñoo ngi leen di ñaanal kenn lu jàmm te di ko sàkku ci yéen.